voilà non Karim c'est c'est normal Karim double nationalité la am di bërki démb bu ñuy wax waxu double nationalité ci la daw dem naan day day day déposé pour pour euh, pour bàyyi <laughs> nationalité donc Karim moom sa moo la gën a xam ne du ñëw Karim Wade moo la gën a xam ne du bokk loolu kooku moom <laughs> gars nañ concentré wu fii Karim xamoon na ni du bokk xam na ko bu baax a baax a baax ni ni Khalifa Sall xamee ni 2 pour cent du ko am noonu la Karim Wade xame Karim Wade mosu fi ñëw boobu ba léegi ñi ma fi ñëw yow koo xam ne yow yow moom xam na ni xamoon na ni sax da yorel na Sénégal xaalis joxu leen ko ba pare yor double national ma Karim Wade lan moo fi boole lan lan ñaata milliards la yoro Sénégalais lan moo ko fi boole donc kooku moom du candidat yow gars yooyu yooyu noonu diversion la xanaa xamoo gars yi dañoo muus de dañuy bàyyi foog nga war a concentré wu ñu indi la beneen diversion Karim Wade yore ñu ay milliards joxaguñu ko ba pare am double nationalité bu ñuy wax waxu nationalité lay doog a dem naan day résilier xaw ma lan day résilier nationalité am xaw ma day dindi nationalité am day bàyyi nationalité am boo xoo boo leen xoolee date date bi sax loolu matul deux deux trois jours kooku fan la jaar nañ nañ bàyyi waxu <laughs> Karim Wade waaye sama gars yi focus si suñu candidat bi suñu candidat bi yàlla sàmm na ko ba tey dem na ci élection yi ne ñëpp tout autour ñëpp les forces vives de la nation les forces vives patriotiques de la nation autour du candidat Diomaye Faye ku set la ku sell la waxoon naa leen ko avant El Malick di dem TFM di leen ko wax nee naa leen dama ne Sonko gënul set Diomaye fay Sonko gënul set Diomaye Faye <laughs> lépp fu Sonko jaar Diomaye fay jaar na fa Sonko dafa dagg diplôme am dem ENA Diomaye Faye fekk fa dagg diplôme am dem ENA Sonko ñëw yor yor syndicat bi créer syndicat bi moom ñoom Diomaye ñu dàq ko Diomaye Faye këf syndicat bi téye ko Sonko ñëw ñu créé Pastef ñoom Diomaye ñoom ñoo créé Pastef ñu woo Sonko te Diomaye Faye moo moo moo xanaa xamoon ni Sonko moo mujjee ñëw Pastef Sonko créé wul Pastef de Diomaye Faye mooy leaderu Pastef moo ko créé ñu woo Sonko Sonko ñëw moom moo proposé Sonko ñu dem waxi ji ko Sonko ci deuxième réunion ñoo ko moo dem proposé Sonko donc tey lépp Diomaye la ñu sant Diomaye nag. parce que sénégalais bu ñu demee ba am jomaay jomaay moom ma xamal sonko ci plateau wax naa leen ko moom ma xamal sonko ci plateau affaire aji saar ba mu jeex takk benn nit moomu musa woo téléphone di ma woo di ma nemmeeku di ma di ma encouragé jomaay fay la <laughs> donc ku xamul jomaay fay rek mooy sosal jomaay fay ku xamul jomaay fay rek mooy tiiñal jomaay fay jomaay fay sonko gënu ko set ci dara projet bu ñuy wax nag projet bu ñuy wax jomaay fay moom moo leader moom moo ko coiffé sonko defu ci dara projet bi ñuy wax naan ñun projet bi moo ñu boole moo tax kan moo mën a génne jomaay fay foofu non kenn du suul ker jomaay gor la garmi la nañ ko sant nañ ko gërëm tey Serigne Touba moo tax ñu xam Cheikh Ibra Fall euh, Cheikh moo tax ñu xam Serigne Touba di moins Cheikh Ibra moo tax ñu xam Serigne Touba te Serigne Touba a existé avant Cheikh Ibra mais Cheikh Ibra moo tax ñu xam Serigne Touba waaw mooy buntu ba ñu tuddee ko Baabul Muridina kon nag tey Pastef si maanaam bu ñu doon wax ne kan mooy Cheikh Ibra bi dañ naan Jomaay Fay mooy Cheikh Ibra ba. bu Sonko doonee Serigne Touba Pastef ba Jamaay Fay mooy doon Cheikh Ibra ba kenn mënul romb doo dugg ci biir kër gi te doo jor ci Jamaay Fay pour ñu ko xamul voilà RDV lañ tax mu mu mu mu convaincre ma moom Jamaay Fay boobu ñu ngi doog a dàq Sonko foofu laa commencé nag di ja di valoriser di valoriser ba usine benn tali gis na vidéo ma leen dugalal noonu c'était en 2016 2000 euh, waaw 2016 ma dugaleel ba nga ay Mollah Pastef boobu kenn xamul sax Pastef sax si woogul woon kon donc ñi ngi sant Jomaay Fay di ko gërëm kenn mënul taqal Jomaay Fay kenn nit nag doo ko ñëw di ko sosal te xamaloo ko dara Jomaay Fay lépp fu Sonko jaar Jomaay jaar na fa amul lu sonk mun a yëkkati ne lii man maa ko kii te te te te du Jomaay nit bu tey la nit bu sell la nit bu jiital Sonko respecté ko projet bu ñuy wax nii Jomaay moo ko coiffé moo ko créé groupe groupe WhatsApp commencé di dajale gars yi bu ma nekkee fii Canada wax naa ak Jomaay Fay téléphone voilà wax naa ci euh, oto oto daam daam daam taal bi ci oto daam taal daam taal sax moo ko woo paas ma ko boobu ñu ngi nekk ci affaire projet bind projet bii nii ñu waxtaan ci lu bare bare bare bare bare daam taal bu bu Canada moomu ko paas ñuy waxtaan ci bu baax donc projet bii ñuy wax nii bu dul woon tey Jomaay du am ñoo moom moo dajale ay tête pensante ci monde bi dajale ay borom yi xam-xam moo leen loqati moom moo leen loqati dajale gars yi ñi nga xam ne ñenn ñaa ngi bombardier di créer ay ay avion ñenn ñaa ngi ci industrie yi ñenn ñaa ngi ci ci CAC 40 bi euh, en France aux États-Unis ñëpp Diomaye Faye la leen dajale muy ay tête pensante dugal leen ci groupe diriger groupe boobu noonu ñuy bind di bind di organiser di defa defa defa def ba teg projet boobu donc donc kenn mënul wax ci projet te santoo Diomaye Faye keroog bu ma koy wax sa am na kenn ku ma bind ku ku ku bind group boobu bind turu group bi xaw ma lan euh, xam man duwaa ja mi ngi mi ngi euh, ci commentaire bi ne groupe waaw c'est vrai boobu moo ko créé ba ba bind groupe bi mooy président moom mooy administrateur bi donc Jomaay Fay ku sant Sonko ku bëgg a sant Sonko santal Jomaay Fay te wax naa leen ko te après El Malick bu mu génnee ci tele bi ya ma waxoon yépp la wax lépp la wax la ma waxoon lépp la wax donc affaire bi sama yi bal ba tàkk na làmbaay ñaaw na Pastef wër na nombo Pastef wër na ñëpp nombo voilà Pastef wër na nombo donc comme ni leen ko waxee tous autour tous autour voilà tous autour tous autour jomaay jomaay rek waaw ah, jomaay rek ne Ibou fu nekk nii ba lan lañ fi xeex <laughs> Ibou xeex gaa yëpp ko bëgg xeex gaa yëpp ko bëgg mais xeex dafa am dafa laaj moyen Ibou pour te dire très sincèrement c'est vrai ñun bëgg nañ xeex et tout sax mais Ibou seetlul benn affaire xanaa balaa ngaa xeex sax nga ñu libéré sañuy sañuy prisonniers yi xam nga c'est très facile nag xeex baax na sa très facile ñu nekk fi naan gaa yi xeex leen <laughs> mais ñoom ñooy xeex ñoom ñooy xeex ah ñun xeexuñu ah ñoom lañuy ñoom la ñuy tiré ay bal ñun ba léegi ñu ngi naan xeex leen mais am na ñu doon wax xeex leen ñaata lañ ci rey est que ñun mun nañ leen indi ah pourtant ñoo leen doon wax xeex la nii eh, ñaata lañ ci rey mais loolu ay bakkan la nit fi non xeexal mu xeex ñu rey ko loo ko dara moom mooy ñàkk njabootam yee koy jooy mënoo dundal njabootam yi à vie donc xeex bi ba mu jotee xeex nañ ko mais fu nee ni lan lañ fi xeexati lan lañ fi xeexati jomaay fay lu fi des moom mooy dem élection gagné affaire premier tour libéré gars yi ñëpp libéré wu mu dem loolu beneen xeex la mais xeex newul rek yor cocktail molotov di sànni rek ñi nekk Sénégal ñoo koy dund de du ñu ragal de mais dafa metti de dafa metti de xeex dafa metti de nga xeex dugg sa biir gàlle sa dóori cocktail molotov sa loxo yi am am na booy xam seen loxo dañoo lakk ay si cocktail molotov xam naa ci dara am na benn booy ci yoonu Nicaragua bi la mujjee demee booy Casamance ñi leen topp am na booy xam ba léegi ñi ngi leen topp. xam nga loolu am na booy yoo xam dañuy xeex ba léegi ñi ngi leen di topp. am na ay ba léegi ñu ngi leen di wér donc gars yi dañoo def nañ lu ñu mën ci kéem tolluwaay kattan mais il faut dépasser des étapes état bu tel lii la woon bu mu xeex jotee xeex nañ lii bu mu jotee stratégie jotee def nañ ko lii bu mu jotee def nañ ko mais mënuñu reculer waat di wax a xeexu lan ban xeex.